monsieur le ministre tey damay commencer par la CBAO actuellement les agents de la CBAO dañoo grève parce que dañ doon demander augmentation de salaire la direction d'accord la ñoom ci seen biir discussion ña ngay grève nag damay bañ ñu am chute bancaire day yàq suñu économie loolu moo tax may poser problème bi parce que à la place ñu ngi jël ay prestataires ñuy ñëw di remplacer les agents yi nga xam ne dañoo def la grève te loolu dama yaakaar ni loolu c'est pas une bonne chose pour notre économie loolu danga ko war a xam parce que ñoom on est actionnaire dans la CBAO ça c'est la première chose boo xam ne bëgg naa nga xam ko loolu lañ ci mun def ngeen def ko pour les populations yi nga xam ne ni ñoom ñoo fay liggéey parce que loolu aussi seen droit la. benn bi des monsieur le ministre damay wax sur la poste on parle toujours de la poste poste dafa am ay problème mais monsieur le ministre le patrimoine de la poste. peut régler les problèmes de la poste sur ces détails defe naa ni poste am na patrimoine boo xamee ni bu ko jëlee am na ci patrimoine boo xam ne utiliser tu ko wala ñoom nekk duñ si war nañ ko mën a jaay def ko dans les fonds de la poste pour que poste am moyen yu mu mun a redressé woo mais loolu aussi day ànd ak encadrement wu ministère des finance bu mu wóor ni que li ñu def nii teg nañ ko si yoon parce que tamit patrimoine mënoo am passif bu baax ba pare yow sa mën nga mën a actif bu baax te mën da régler sa passif te tout un problème boo ne war nañ ko gérer loolu war ngeen ko xool bu baax benn bi ci des je viens sur le plan yaatal waxoon naa ko départ dama bëgg ngeen yaatal ko ba si biir département yi bu leen ko yaatal si biir ndakaaru rek na dem si biir département yi beneen bi ci des monsieur le ministre damay wax ni que SAFRU posé woon naa problème am dama bëgg ngeen jël ko en compte dans le budget parce que SAFRU dafa mel ni comme PUDC wala même mel ni comme yeneen yi parce que les 100 logements pour ñu mun ko réussir il faut que au moins que la SAFRU am les moyens pour mun a def les aménagements nécessaires pour le compte des populations maa ngi leen di gërëm di leen sant asalaamaaleykum jërëjëf.